mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñëwaat nañ niñ ko baaxoo defee ci barab bu tedd jataayoo ak kilifa yu tedd muy fii ci daarul xudduus ci kanam sëriñ ahmadul muxtaar mi nga xam ne moo di xalifatu cheikh mohamadinil mustafaa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te wéral ko ci ndigalul cheikh Mouhamadinil Muntaqa al xalifatul am li taifatil muridiya yàlla na ko fi suñu boroom gën a yàggal te wéral ko ci turu njabootuk sëriñ Touba gépp ak cheikh sépp ñëwaat nañ ngir fàttali loo xam ne kenn du ko fàtte mu di bis bi nga xam ne ci la sëriñ Touba ñibbisee woon ci dëkkam bii di Touba. ngir loolu nag atum ren day tombe nag ak téeméeri at yoo xam ne sëriñ bi am na ko fii ci Touba ci ati gàddaay gi sëriñ Mountakha Mbacké nag mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ tubaa yàlla na ko suñu gorom borom gën a yàggal te wéral ko jox ndigal sëriñ Ahmadul Mokhtar ngir bis boobu ñu taxawe ko ci nu mu gën a rafete ci nu mu gën a yaatoo ci nu mu gën a yëwéne ñu war a jox kàddu nag sëriñ Ahmadul Mokhtar mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Mahamadul Moustapha te lépp nekk ci ay loxoom mu di ko saytu ànd ko ak njabootu sëriñ Touba gépp asalaamaaleykum wa yéen mbokk yi fi teew ak yi fi teewul ngi leen di wax li waral bis bi li waral daje bii tey muy waajal màggal gi Daaru Xudoos baaxoo def at mu jot dina xamal ne ginnaaw bu ñu xalif bi sëñ Muntaxa Mbàkke ba mu jox na ci ndigal ah, commencé daje yi màggal gi nag ñu ngi ko war a def le vingt six wala le vingt sept mi ngi aju ci feeñug weeru jullit ñi ah léegi nag ñu ngi leen ci woo bëgg yéen murid yëpp ngeen taxaw ci taxawaay bu mat sëkk te xam ne Sëñ Tuubaa lañ koy defal defaluñ ko keneen sëñ Tuubaa la ñuy defal bis bi kon ngeen ko jàpp da ngeen di jàppee yëfi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moo ko moom kon noo koy waatee boole nañ ci murid yëpp murid yëpp lañ bëgg taxaw ci taxaw suñ taxawaay ba mel suñ taxawaay bi ñoo leen ci waa ci bis bi bëgg yéen ñëpp ngeen daje fi fi mënta daje ngeen def li ñuy def Tuubaa jàng alxuraan salaatu ala nabi eh, tudd yàlla ko mën a fanaane ci bés ba nga fanaane ko bët set ko mënul nga def ci la mën yéen mbokki jullit yëpp rawatina mbokki murit yi noo ngi yëkkati suñ kàddu ci turu cheikh ahmadul moxtar mbakke xalifatu cheikh mouhamadul moustapha al bu ngeen gisee jataay bii nag dana am lu muy junj ak lu muy tegtale Baye Cheikh Ahmadul Mokhtar Mbacké dafa jëlewaat ndigal ci kilifa ak yoon wi di kilifaam di Cheikh Mouhamadul Mountakha ci xew-xew bii di dëgmal si muy bis bi sëriñ tuuba ñibbisi woon Touba te ren jii mu war a tolloog téeméeri at bis boobu nag di téeméeri sëñ bi euh, sëriñ bi jot ndigal ci cheikh Mouhamadul Mountakha mu ni ko bésub sëñ Touba boobu di ñëw te ngay jëwriñu liggéey bi na nga ko soññee te yaatal ko ba mu àgg fépp ba julliti àdduna bépp waxuma sax murit waaye julliti àdduna bépp ak fuñ mën a nekk xam li nga xamante ni ñi wuutu sëriñ Touba ginnaawam taxawal nañ ko ci wàllu xam-xam taxawal nañ ko ci wàllu defaraat ruu yi ak delloosi Euh, pas-pas yi ak dalal xel yi donte pas-pas yi musul mësul a dem waaye ku euh, ñàkk ku mel ni sëñ Tuubaa ci saaxir dana am la sa xel yëg loolee nag nga xam ni xol yi moom la doon yëg muy nuru ngëlëmte ngir demin wu metti woowu wéetaay wi Cheikh Mamadou Moustapha taxaw ca ca njalbeen ba dellu suwaat yaakaar yëpp euh, leeralal xol yëpp ba ñëpp dellu suwaat seen xel dal mu téye leen ci liggéeyub sëñ Tuubaa bi tey liggéey bi na ko sëñ Touba yore woon ñi ko fa wuutu aw ci yoon woowu ba dëkk bi agsi fii murid yi agsi fii pas-pas yi agsi fii loolu war nañ koo yaatal ba àdduna bépp xam taxawaay yi nga xamante ni kilifa yooyu taxawoon nañ ko ca bés bi nag di bés bu màgg boo xamante ni boroom muy sëriñ Touba yàgg na koo bàyyi xel di wax allahuma ijaal xayra ayaami yow ma alqaaka sunu borom maa ngi lay ñaan nga defal ma bis bi bi gën ci samay bis bis bi may taseeg yow dikkam ak Tuubaa it bind na ko wax ko yàgg koo leeral ak akramani bila xuruji badani min watani li nafi ahlil muduni sun boroom daf maa tarale man xaadimu rasul sama kër rek lay mujj këram gi mu njëkk a sanc ci gox bii ginnaaw daaru salaam mooy Touba boo demee ci jumaay ji fi jumaa ji nag ca penku jumaa ja sëriñ Touba ma nga fa bi mu koy bind mi ngi fi te loolu sëñ Maodo Moustapha moo ko tax taxqiq ndax moo ko indi ci barab boobu liggéey bu màggee bi nga xamante nag ñi ko fi wutu def nañ ko fi sëñ Ahmadul Moxtaar mbakke wax ni mi ngi koy fàttali bokkam yim bokkal sëñ tubaay yëpp te di ci woo murit yëpp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew nañu jox bis bi ak xam te xam ni e, ñaare ku ko fekkee dana néew nga fekkewaat ko tatal ko téeméeri at moom ku ko fekkee ñaari yoon boo boo moytuwul la cay xew doo ko xam képp ku am tawféexe nag sun borom may la nga fekk ko ren jii te yàlla na yàlla may tawféexe ñu fekke ko bis bu rëy la boo xam ni kenn ku nekk war na koo bàyyi xel kenn ku nekk war na cee def yitte def ci Pastef ci ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké bëgge te jiitu ci ndax jëf na ci ñaan na ci ñaari taxawaay yooyu yëpp ràññeeku na ci lool mu bëgg nag bépp murit ak fu mu mën a nekk na nga ci jëf te ràññeeku ci bu baax jëf na ci ñaan na ci bu baax xel dal na ci yaakaar dolliku na ci bu baax sëriñ bi mi ngi koy yëgal njiitu réew mi ak jëwriñam ji koy jàppale ci liggéey bi ak mbooleem ñi koy jàppale ci yeneen gox yi ak fu fi mën a nekk mi ngi leen di soññ ci bis bi te di leen ko yëgal te di leen ko fàttali ndax bisub réew mi la bisub àdduna la bisub bisub bisub jullit ñëpp la lu ñëpp bokk nag sëñ bi du ko xatal da koy yaatal ba mu àgg ci ñëpp kon mi ngi koy yëgal président di ko yégal premier ministre am di ko yëgal ñi koy jàppale ci liggéey boobu ñu gàllu ci seenu loos di ko yégal itam autorité locale yi li ko tàmbalee ci préfet sous préfet wala sax mën naa yéeg ba ca gouverneur wàcc ci préfet ñëw ba ci sous préfet ba ci euh, maire Touba bi di Abdou Lahad Ka ñoom ñëpp mu ngi leen ci soññi ci kenn ku nekk wàll ga nga mane ci sab cër ci liggéey bi mu ngi sant ñëpp di soññi murit yëpp di soññi mboolem seexi Serigne Touba ndax ñoom ay jumtukaayu Serigne Touba lañ murit yëpp fu fi man nag ci biir réew mi ak bitim réew sëriñ bi mu ngi leen di bàyyiloo xel bés bi rawatina nag njabootu boppam gii di njabootu Cheikh Mamadou Moustapha nga xam ne moom jumtukaayu sëñ Modou Moustapha lañ ñoom ñoom ñoo yore liggéey bi moom mu ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax li ko tàmbalee ci sëñ sëñ Cheikh Mbacke Madina di wàcc ba ci ñëpp ndax yéen ay jëwriñu liggéey bi yéen jumtukaayu kër gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci ndigalu sëñ Ahmadul Moxtaar mi fi toogal Cheikh Mahamadou Moustapha ci njaboot gi yaakaar naa lii ëpp solo ci wax sëñ Moodu mi wax na ko liñ ciy dolli rek mooy solo si nga xam ne bis bi màggal gi da ko am mu dëppook centenaire bi ba nga xam ne sëñ Ahmadul Moxtaar da ko jox beneen cachet bu bokkut ak màggal yi fi day jaar loolu moo tax mu woo njabootuk sëñ Cheikh Mouhamadul Moustapha yëpp ak njabootu sañ Baara gi ak mboolem jullit yi ak mboolem taalibe yi ak mbokk yi yëpp ne nañ dajaloo waxtaan xool nan lañuy def ba bis bi ni ko sëriñ mu taxa bëgge moom mu bëgge ko bis bi jaare noonu yoon mooy fexe ba bis bi sëriñ tubaa ñëwoon Touba ba am téeméeraat ñu xajal ci jullit yëpp xajal ci murid yëpp sëñ Amadou Maxtaar daf na wax ne comme que Serigne Touba bis bi bisu Serigne Touba la kon na ko njabootu Serigne Touba gépp yëg ñu dalee ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha moom dafa daal di génne euh, cent millions téeméeri million du ne jël leen ko pour liggéey bi yëpp mat fa mu waxee nu loo xam ni moom dafa fonk bis bi ne nañ koo def fépp nañ ko nañ ko nañ ko yëgal murit yëpp te moom moo njëkk ñaan ne murit bu ne fa nga nekk nanga nga jàpp ne bis boobu sa bis la te boo koy defee tam mel na Serigne Touba rek nga ko defal waa bitim réew nag daayira Serigne Touba yëpp la ñu wax ak daayira Cheikh Moustapha yi daayira Cheikh Mouhamed Lamine Bara Mbacké ñu bëgg ñu lënkaloo fexe bu bis boobu daal ni ko sëñ Mountakha bëggee sëñ Amadou Makhtar mi bëgg ko ñu defe ko noonu njabaru sëñ Touba gi nag yëpp nag dem nañ fi ku ne yëgal nañ la ñu demagul sax programme nañ ko pour yëgal leen ko ndax sëñ Amadou Makhtar nee na bu kenn manqué kon nag bu dul woon bisub Serigne Touba rek ñu ne bisub Cheikh Moustapha rek la ñëpp war nañoo ñëw ci loola yàlla bi mu defee ne mu daj rek muy nekk bisub Serigne Touba ñu bisub Serigne Touba jo xalifaam boobu njëkk a toogal fii moo ko organisé tey jii mu nekk centenaire ñu war koo def kon laxasaay waat la ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ak ni mu ko defe woon ni mu ko ni mu ko diglee ak ni li mu ci def euh, ci ndigalul kilifa yi kàddu yi day jëm ci fàttaliku téeméeri at yi bi sëriñ bi ñu bisee Touba li xew ginnaawam ci yoon wi ñi wuutu woon sëriñ bi def ko ci njaboot gi ci wàllu xam-xam ci wàllu yar nit ñi ak delloo leen ci yàlla ak ci wàllu dundal li yàlla santaane ñu dundal ko ci suuf ak ci boole nit ñi ak bool bokk ñu bokk liñ bokk ñu war ko bokk yooyu yëpp yoonu murit séq na ci jéego yu rëy rëy moo tax sëriñ bi santaane ñu amal ci ay waxtaan yoo xam ne loolu lépp dañ ko ci fésal ñi ko xamoon gën koo xam ñi ko xamutoon xam ko ci ay barab yu wute bokk na ci ndakaaru danañ fa amal jataay yu mag yoo xam ne ay waxtaan yi mag ay borom mag ñoo koy def danañ ko defit ci Louga def ko ci njaareem gi nga xam ne fa la nekk fukki at ak juróom-benn di fa liggéeyal yàlla ba wujjee fa boromam ak fii ci Touba nga xam ne fi la ñëwoon ci ñaar fukki fan ci muharram ñu di ko màggal at mu jot barab yi yëpp danañ ci defal ay waxtaan yu mag yoo xam ne ay borom xam-xam yi ci yoon wi ñoo koy fas yéene seq jéego yooyu nga xam ne bi fi sëriñ bi jógee li tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ci nekk ak mbooleem seex seeg taalibe bi liñ fi liggéeyal lislaam liggéeyal ko yàlla fas nañ ko yéene jëmmal wan nit ñi ci ay waxtaan yu leer yoo xam ne euh, buñ noppee danañ xam ne sëriñ Tuubaa liggéeyal na yàlla liggéeyal na àdduna liggéeyal na loolu daal mooy li sëriñ bëggoon ñu fàttaliku lu ci nekk nag euh, buñ ci àggee bi sëñ koy def ak fañ koy defee danañ ko leeral waaye daal ci Ndakaaru ci Louga ci Njaareem ak fii ci Touba fu ci nekk dana am waxtaan yu mag a mag ay borom xam-xam di ko def incha allah. mbokk taalibe yëpp murid yëpp ñu ngi leen di fàttali eh, bis boobu boobu sëñ Ahmadou Mokhtar eh, ñu ak bokk yi njaboot gi fas yéene koo def eh, ñëpp ko bokk ñëpp nañ ci nañ ko nañ ko àndandoo rek te gën cee yokk suñu itte gën ci gën cee gën sàmm suñu positif gën gën ci euh, taxaw bu baax a baax baax taxawaay rek mooy am solo euh, yombul waaye euh, mënut a ñàkk kon nag loolu lépp buñ ko boolee tax taxawaay la rek ba xam ne dañ ko war a bokk taxaw ko taxaw taxawal ko sëriñ bi sax dàkk rek ci eh, ci ci ci liggéey ko bëggee ci ak sax dàkk ci liggéeyal ko yàlla tax. noonu daan daan daan daan ngi am donc eh, kon mbokk yi bis baa ngi noonu la ko kilifa yi bëggee ci njiitul sëriñ Mountakha Mbacké. ak jëwriñam bi ko nekkal Daaru Xudoos muy sëriñ Ahmadul Muxtaar ñu di leen xamal ne itam mbale mi nga xam ne moom lañ ci baaxoo def ngir waajale ko màggal gi ngir seetal dëkk bi te sëriñ Mudu Musaa bi mu wootee bis bi mu daan ko def di ko taxawu di ko jiite mbale moomu itam le 19 juillet lañ ko jàpp fii ci Touba ñu xamal ne dëkk bépp daa war a set ndax kuy séentu àdduna barab yi nga leen di séentu da nga ko war a waajal setal ko ba mu set wecc kon ñoo ngi leen koy fàttali di ci woo jullit yëpp. di ci woo taalibe yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.